ñu gën indi tey ci plateau bi mooy waxtaanee mbirum euh, marabu tradipraticien yi. mais hmm? ma laaj la dara. ayca. Hmm? kii ancien gendarme la. Hmm. ancien policier wala gendarme. non j'étais militaire. militaire ancien militaire. te day liggéey ci rajo. di dalal sëriñ directeur rajo la. en rajo di dalal sëriñ si. moom am na droit nga invité ko. waay parce que xam-xamam màcc na ko. waay man ku xamul ci réew mi dégg nga ma. bokk ma ci mbiri sëriñ yi mhm. mais bi jàng jotee jàng na am naa xam-xam mhm. donc yow nit ñi respecté neen la mhm. d'accord mais nan nga may woo kii woo kii di oo kii nga xam ne waxi daf lay wax ñu waxtaan ci mbiru sëriñ amul niveau ak capacité toog fii loolu yëpp ñu la parce que moom dafa am relation ak sëriñ si non non non relation mu mu comprendre mais kii amul niveau su ñuy waxtaanee xam-xam. Mhm. kii toog ma toog yow nga toog nga indi ko fi. wala mu dem toog pour yow yéen a ko ëpp xalaat ci affaire sëriñ yi nekk Sénégal fii. non non daf ci warta am xalaat moom waxi dof lay wax wérul. mais waxu dof boo xamante ne nit ñi xam xam nañ ko di ko ci seetaan. non mu concerné ko mais franchement ak ak bu ma la jox mhm. man munoo maa teg teg kii ñu toog di waxtaan mbiri sëriñ xam-xam ma war a wan réew mi lan mooy xam-xam. Mhm. ngir weer charlatan yi nekk ci internet bi. nga tegal ma kii lan moo ma wóor ne yónnee ko. dañ laa yónnee. kii di wax hmm. ku réew la. kan moom mi toog. ku réew la. yow ku réew nga yow. yow ku ah réew nga est-ce que du rafetal kàddu yi tuuti. parce que réew ne mën na toog ngay nit ngay nit man may nit xanaa war maa toog nga yow yow da ngay dara yow yow yow doo dara. non mais li ñuy waxtaanee amoo fi ca. yow yow yow yow yow xamoo dara. non non non jàngoo dara doo dara. mais soo ma joxee ñee du la jig yow xamoo dara jàngoo dara te yow doo dara dama lay joxoñ non bul ma joxoñ dama lay gën a joxoñ xamoo dara doo dara jàngoo dara soo ma joxoñee du la jig Pawlish déggoo ma la dama lay gën a joxoñ yow yow yow doo dara barke yonent yàlla Muhammad soo ma joxoñee du la jig barke Seydina Muhammad doo dara jàngoo dara munoo dara xam nga tey la preuve li ma la doon wax ne warut fee toog. mais yaa ko tooñ. mais xoolal non non parce que aussi xam nga non non non non non parce que yow ngay nit may nit yow yaay kan yow. mun ngaa wax yow yaay kan yow. te bul ma joxe yow maa la gën a xew. maa la gën a siiw ba may dégg daal déggoo daal yow mais yow yow yow da nga yabaate nga trop yow. yow yow ku yabaate nga yow. sa baaraam boobu bank ko. léegi dama ubbi samay juróomi baaraam yi yow ku yabaate nga yow. waaw c'est-à-dire que xam nga. sama chef voilà nga baal ma chef dimbal ma rek mën naa jël doo dégg. man man mën naa li ma li muy def maa ko dàq un million fois. i xale laa bu ndaw xam lépp dégg lépp mën lépp barki salaatul fatiha Eh, mooy yow mooy. loo tekki tekki xam nga eh, eh, loo tekki tekki leneen tekki faaluma la. xam nga barki Seydou Ndamb. téere téere bi lu muy rek yow soo ma rayee. yow soo ma rayee ma xam ne man du ma nit. Pawlish kon léegi léegi pour te dire ma damay taxaw. Pawlish léegi dama barki Seydou Ndamb Mouhamad. Pawlish. doo ma rey. Pawlish doo ma taal. doo ma def dara. maa la gën dëkk ci dëkk bi. man maa la gën xam dëkk bi maa la gën a xam dëkk bi ni muy doxe man ci dëkk du ma seer ni booy nekkee ni man du ma seer. léegi dañ la yónni ci man man faalo ma man sax dèjà Serigne Ndaw man Serigne Ndaw ci laa yemal ak yow Serigne Serigne Ndaw ci kay xas laa yemal ak yow waaw mais tout est égal yéen a yem les Paulus yéen a yem man say mbokk damay mbokk du tey ba may mbokk du tey man faalo ma la déggoo ma la faalo ma la juróom yoon nga man faalo ma la bu nga xam ne man faalo ma la parce que Seydou Naib parce que Seydou Naib faalo ma la benn faalewu ma la dara barke alxuraanu karim deux jours ak loolu moom ay Thank you. ndax man dama ndax man dama wuy ma léegi man nekk ci dëkk bi man ma nekk ci dëkk bi man ma bokk ci dëkk bi man dëkk bi man la may toog yow yaa yow la yow la ka yow la ka duma la yow de waaye dama toog léegi dama toog léegi dama toog wuy ma Cheikh Cheikh wuy ma barki alxuraan waaye Cheikh wuy ma wuy ma léegi léegi dama toog léegi dama toog dama toog xam dëkk bi nga xam dëkk bi mooy dama toog ñu waxtaan dama toog toogal ñu waxtaan toogal ñu waxtaan toogal ñu waxtaan toogal ñu waxtaan télé xam nga xam nga dañoo nekk ci télé nekk en direct du dëgg te yaakaar naa ne quand on est devant une télé te war a waxtaanee thème et que dans la vie il ne faut jamais waa xaar rek Yves léegi déglu Cheikh Mawli eh, xaaral c'est-à-dire que xam nga Cissé le respect waa xaaral Cissé yow de soo yàqee ma xaaral après xam nga Cissé waa xaaral damay wax Paulus Paulus il faut qu'on regarde déglu Cheikh euh, Yves gis nga àdduna dañuy wax ne le respect d'autrui est le fondement de la dignité mhm. gis nga nit dañuy wax ne bul xeeb dara mhm. man personnellement laay wax mhm. dañuy wax ne ndox mu salte sax mën na la dimbali fay lakk même une eau sale peut t'aider à éteindre le feu aujourd'hui émission bi ñuy def nii quelles que soient les conditions quel que soit le degré de notre intelligence et le de nos réflexions je pense que ne kii tey peut-être que même su nekkee ne amul apport bu mën a indi war nga fi mën a jëlee dara te ce qu'on attend waaw te ce qu'on attend de cette émission c'est pas des menaces ci yoo xam ne dañ koy menacer doomu aadama mhm. euh, ndax xaaral rek euh, mhm. Cissé xaaral Cissé mhm. xaaral xam nga c'est-à-dire que c'est pas des menaces pour doomu aadama non loolu taxul ñu fiy teg parce que bu doon loolu la yow doo yàq say temps yàq say ne la ñun ñu yàq suñu programme ñu ñëw ñu toog fii moi c'est la première fois que je le vois yow c'est la première fois qu'on toog ici du dëgg mais dañu wax ne tout le temps nit ki nay ànd ak dal te nañuy dal nañuy teey su ko defee ñi ñuy xeeb ñi ñuy seetaan bañ ñoo xeeb mhm. uh-huh. yow li nekk ci sa dënn bi mhm. nga sotti ko discussion yi mën nañ ko def et que mhm. tout un chacun respecte li nga xam ne mooy maintenant dañ koo yónnee ñàkk ko yónnee bon peut-être que loolu waa xaar rek loolu c'est parce que yow man nga tu es responsable du la fa nga nekk kilifa nga mais mais ah, euh, fukk euh, euh, ah, ma la benn léegi ma léegi ma léegi ma léegi ma ñu ñu recadrer plateau bi ah. waaw chef wooy ma léegi dama bëgg ñu dugg ci waxtaan bi sax directement. li ma lay wax chef. Mhm. c'est simple nit. doo ko xeeb. Mhm. nit nit rek la nit dafa fort. Mhm. c'est ça mais tey mënuñoo waxtaanee médecine nga indi mbërëm làmb mënul nekk. Oh. <laughs> mais ah mais mbëru ma am na mën na nekk médecin mënuñoo waxtaan tey. Ah. mbirum sabar. Hmm. ak tëgg ak fecc nga indi imam.